nañ la ko fii nangul nañ la ko fële mooy tax may wax ci mbir mii kii nga xam ni moo sabab mbir mi muy sëñ Béthio toog naa ci néeg sëñ Saliou wu Ousseynou mbay mi ngi dund coow yi bari ma ne ah sëñ bi ñaanal la sëñ Béthio mu ne ma ngir lan ma ne ko ah nun de dañuy gëm fu taq jële fu ñu taq dikk nga seetal leen mu ne mm, ñaanal ko yow mm-hmm. moo tax yërmande yàlla wàcc na ci kero bañ ko téyee ba ma ko ñaanal ba ma fa demee ba seeti ko ci suba sa lañ ko bàyyi maag ku ñuy wax jibaka ñoo ko mujj wisit te loolu yàlla doo nga taxoon ma di ko def yooyu mu ko doon ñaane nit xam ni noo bokk waar ndool leenu kër sëñ Saaliw te man kër sëñ Saaliw laa ci doo ci doomi sëñ tubaa ku ca bokk ku nekk lu ma yëg ni jariñ dana la jariñ dana danaa ko danaa ko wax danaa ko def hmm. kero ba ma nekkee Touba Fall dégg yëngu-yëngu am kër sëñ Saaliw muy is bu tarxiya ak li xewoon maag ku ñuy wax maag commandant bu Mbàkke ñoo fa jiitu sëñ Saaliw ubbeekul ba sëñ Saaliw ubbee ma ne ko Mbàkke defaral fépp mën naa defaru defaral lépp Mbàkke hmm. man nii laay doxee kere ba ma dematee di dégg ay ñaawteef diggante sëñ Béthio ak sëñ Mamor damaa daal di taxaw jéggulul sëñ Mamor bi nga xam ne moom lañu war a jéggulul hmm. lépp daal di fay loolu lay ñëwaat ci tey jii bëggaat loola yàlla fayaat suñ mbir yi ndax jax-jax ji fi mu ne kenn waxul luy defar kenn luy taal rek la ñuy wax te ñiy taal duñ ci bokk ci sébu bu jàppee hmm. ndax matuñu ko bu ko defee nag isa kunta fi euh, isa euh, kasa euh, isa fi amrin hmm. nee na bu fekkee ne dangaa nekk ci mbir walam tara xiila te amoo menn pexe moo moo def fa sabran fa inan nu sa yudraku bi sabri nee na boo muñee rek mbir moo dugg te xamoo noo cay def noo cay génne nee na fa sabran fa inan nu joxa yudraku bi sabri nee na mucc moom mëneesu koo def ci lu lu lu muñ muñ mu ne àdduna it ka saaka oyoonul maayi tukaddiru saf ba wa tas foo miraaran xëgg sa aadata daar yi mu ne teen bi day nax eh, set ka saaka uyunul maay tukaddiru safwatan maanaam ndox léeg-léeg teen bi day nëx ñu nasal ko wata soo miraaran xëkk sa aadata daar yi nee na léeg mu mu mu sell ay yoon nee na jamono yi nii rek lay doon dexee kuntu xaalay ni bu usun war a xaawul ñaari mbir rek mooy am day tàng léeg-léeg mu metti hmm. waaye sëñ Abdoulaye mu baax ma danaa wax nii hmm. bu jamono yëngoo na sa xol na sa xel dellu ca dal ga buñ buñ yóbbu suñu kilifa yi mukk di leen wax loote luy loo luy luy tudd sawara la ma waxoon sëñ maam war ne ko noppi rek yéen am na ku leen wax bu leen wax mukk yéen sëñ bi sëñ bi tax may wax nag maa ngi moom noo bokkoo nekk ca mbul kayal ñu jox ma sëñ abi bu ma jàkkaarloo moom kër mu may may dong bu ndaw mu may tibbal kon kooku xam naa xam naa yoon wi ba ina na la xayurun wa axiirun minhu ki xam ne moo wax ji dafa fiir mayit damaa fiir te ina laa xalaqa aadama ala sawrati yàlla moo bind aadama ca melom ba fa xaala yaa aadama uskun anta wa zawjuka aljannata wa kulla minhaa ragadan haysu shitumaa wa laa taqrabaa haadihi shajara fa takuunaa mina az-zaalimiin kon gannaaw yàlla moo bind aadama tere ko damay wax léeg-léeg bu ma xuloog sama soxna yi dama naan leen yéen yéen yéen a ñu génne sa eh, àjjana <laughs> àjjana lañ dëkkoon gannaaw yàlla moo fexe ba saw jëw aadama génne nu àjjana aska mm-hmm. ay ay ay ragal itam te ñooñu ñëpp ñoo ñu jiitu woon mm-hmm. ba nga xamee ni uskun anta wa zawjukal jannata wa kulaa minhaa ragadan haysu shi'tumaa wa laa taqrabaa haadihi shajarata fa takuunaa mina zaalimiin mm-hmm. ah lii dafa leen ko fi mu dër boppum nit fa tàmbalee muy dem ba nga xam ni lekk na doom lekk loo jëkkër jib doom ñu wax ni mooy bollox bii ñu nga xam ni moo na dal yàllaa musal yàlla téye aadama fii moo tax góor ak jigéen luñ bokkule fii hmm. ba loola xewee ñu génn suñ suñ suñ borom daal di wax la mu la wax nee na fa asalawma saytaanu ana fa axrajuma saytaane tarxiisal leen fa euh, fa axrajuma ma kaana fii waqul naa bitoo baadukum di baadin aduun walakum fi l ardi mustaqarun wa mataan ila hin hmm. suñ borom dal leen génne wàcc ñu ci loolu lañ wàcc ñëw ci àdduna bii tey moo tax may wax ni ñoom jigéen ñoo ñu génne àjjana kon gannaaw ñoo dëeroon bopp ca jamonoy aadama ak awa ma nga xam ne bi yonent la te dañoo wax ni yonent moom dong la yàlla moom moom yàlla da ko da ko da ko da ko da ko da ko blindé waaye ku dul moom rek mën ngaa tarxis ci jigéen ñu wàlli yóbbu ñoom ñëpp yàlla nag la nga xam ni moom la Yuusufa defoon ne waqaala iita lakka maasallaahu jooju mu man ko wax pëy mii de yaa moom mu daw musu musulu ko hmm. loola yàllaa ko ab yonent la hmm. waaye kon tàmpalante am na fa ku ne bëgg na sa moroom hmm. waaw wala xad amal bii waa ama bi ah, law laa an rae buraan rabbi la wax bëgg na ko mu bëgg ko ndax jigéen bu ngeen wéetee rek mu summi sa tubéy kon kooku boo delloo delloowaat xelaat sa kaw sa kaw ak ñun ñi ñëpp loolu la waroon a ragale yàlla koo xam ni kii yaa ko man te bu wéeteeg yow suñu sa tubay kooku lañ war a gën a xalaat ni kii nañ ko musulu te bañ di jéem a pexelente ak moom ndax pexe yaa ngi woon nii hmm. mu ne asaytaanu nag yaidukum alfaqra wa yaamurukum bilfasaai walaahu yaidukum maxfiratan minhu walaahu waasun alimun walaahu yaidukum maxfiratan minhu walaahu waasun alimun jooju muy wax ni maanaam kii ngi leen dig maanaam ñaawteef kii dig leen lu baax kon nañ nañ ànd ak yàlla mi nga xam ne lim ñu dig mooy mooy njariñ na xam ne ni ki ñee lim ñu dig baaxul yàlla di gën a dimbali nit ñi laysa alayka hudaahum walakin laa yahdi man yashaa du ci àgg ni ñoo mën a forcer nit ki tey mu ni tey nga jub yonent bi gannaaw yàllaa koy wax loolu parce que noonu buñ la dugal mukk mukk sëñ bi naan la di dee noppi rek rubba qawlin jawaaboo fi sukkooti law kaana al kalaamu euh, euh, law kaana al kalaamu fidatan la kaana sukootu zaaban déglu tàngul da am na kilifa bu ma doon wax ne ma dee deesanal tontul man nag lii may wax dama koy wax ngir tontuwuma sax dama koy wax ngir bëgg jàmm amaat ci réew mi yàlla nu ko yàlla defal ndax saa yu ma ko mosaan def yàlla indi jàmm te noonu li ñu yàlla may dañ ko war a nëbbu buñ ko buñ ko wanee te sëñ Tuubaa ni xoojoo li bari bari saqaay kaay leen ci géejug taxa gi géeju te it moo ne woon waj bu aw wajlu wajbul alxayri min aljihaati asitti a anil afaati juróom mel ni wàll yi juróom mel ni wàll indil ma xéewal yi wax ka jële ba indi xéewal yéefar bu indi woon joxe dañ koy nangu ana Senghor jumaay Tuubaa ji kon ku ci julli tey war ngaa xalaat am na ca bi yool te bi yéefar la mhm. te li sëñ Abdoulaye doon wax bañ koy jaxasee njuga kebe naan ko boppi nit lay jaay mun leen xaw ma day fi mu koy jële baax na waaye fi mu koy def fi mu koy def de baax na nañ fexe ba fi ñu koy def rek baax beneen bi maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi yedd ñaar ñëpp muy ku góor ki muy ku jigéen ki yow kii góor tey stab taaw demal jëli say rakk boo jëlee say rakk jë jëli seen ndey waaye nit boo mënta euh, nax ba jot ko man de samay rakk a ngi nii ku dikk fekk ma toog ñoom te te muñ ak jàll rek muñ muñ ak jëllale doo nga ma ko may. muñ ak jëllale ak jéggale doo nga ma ko may. li fekk amoo rëy amoo am nga rëyu doo dem fekk nit yow sa alal ne fee muy sa sa doomu baay demal jëli ko soxna si itam ki nga xam ni moo am ak yow ak njaboot bu bul ñàkk yaakaar. àndal ak say doom ànd ak moom ngeen liggéey bu leen yàq liggéey bi nga xam ne dajale nañ ko jóge ci sëñ Saaliw ba ci Béthio ngeen jur ci doom damay wax ni bu kenn doon ñaaw ñort sëñ Saaliw magul woon ci doom bi sëñ Tuubaa te bi mu fi mujjee moo ëppale ñëpp delloo siwaat leen seen xel ak réew mi laa wax bari na bu ma ma masee wax nag même gouvernement sax damay wax ak ñoom bi ma nekkee ca Tamba ju koofin fa ba ma déggee ñu naan nañuy nu ñuy séddale xaalis bi damaa lancé sama message daal leen man day déggoon naa ci mag ñi ñu naan maam Moustapha ba góor ba gouverneur général yoreeb xaalis bëgg koo joxe ci réew mi da koo laaj xalaat ba mu ko laajee xalaat mu ne ko def ko ci ceeb bi ku ci jënd sa wàll ne ci man leen man day ba ma laay Ablaye Wade joxe xaalis xel ma ma def mu daje poroxaan dama taa jëlal ay biis fa ma nekk jëlal péncum Seex Ibrahima ñu bari ay rajo ni leen di leen tudd yàlla def ko Samfal la ca ma def ko ca travaux ya forage ya hmm. Touba Fall hmm. Taïf hmm. Samfal Sadio ba ma joxee saajo ñuy bëgg a discuter naan ah boobu xaalis duñ ko kii ma ne ah te ma ko jàllale la gerle boog ñu doo ko nangu <laughs> noonu laa ko defoon ngir yàlla ba nga xam moo tax àdduna loo ci sàkku rek lii alxuraan di wax nee na wa maa tunfiqoo min xayrin fa li anfusikum wa maa tunfiqoona illa ibtiqaa wajhillaahi wa maa tunfiqoo min xayrin yuwaafa ilaykum wa antum laa tuslamoon lépp loo xam ni dangeen koy sàkku ngir yàlla da ngeen fekk yàlla matale leen loolu te du ngeen tooñ kenn lépp lu ngeen di def yéen ñii te soxna sii li ma gis mu mel ni mooy xajambe felaan hmm. xajib mefelaan benn kenn lay doon téeméeri xaj topp ko kenn ku ne bëgg caa sëy ak moom li feeg yàlla dugul mu jox ca kenn taatam kenn du sëy ak moom ndaw si nag lool loolu lool la looy lulu koy bef ñëpp du caagi nag bañ ku ku ñu mañ ne ko wane la sama taata nga nga nangu kon delloo si leen taw tawhid am na fu muy jóge boo waxee sax ñu xam ne yaa ngi taw tawhid waaye wax ngir parparloo loolu amul solo te lil fuqaraa illasiina usiroo fi sabilillahi laa yastati'uuna darban fil ardi yahsabul jaahilu aghniyaa'ahum mina t-ta'affufi ta'rifuhum bi siimaahum laa yas'aluuna n-naasa il'aafan wa maa tunfiquu min xayrin fa inna llaaha bihi 'aalimun allasiina yunfiquuna amwaalahum bilayli wa nahaari sirran wa alaaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa laa khawfun 'alayhim wa laa hum yahzanuun xool leen ñi nga xam ni man mii de ñaari bu ma tukkee bu ma dajee ki ay kilifa dama naa leen ñii lañ war a jox ndax maa ngi jóg ci aljahilu aghniyaa'uhum mina t-ta'affufi waaye nag taxarifoom bi simaahum yaa ngi leen di xamee seen kanam ni xam ni ñii ñàkk nañ waaye duñ la tàllal loxo mukk ñaan nañ moo tax bu ma dajee ñoom man leen jox leen mbàkki mbàkki yi ñii lañ war a jox ndax amuñu waaye duñ ko ñaan mukk duñ tàllal loxo ba tey mooy li nga xam ne nar naa xew ci dëkk bi gannaaw sëñ bi moo ñaanoon waj bu laal xayra minal jaati ba xéewal ñëw nañ ko recevoir nañ ko jël jox ko nit ñi mm-hmm. tey dama ni benn benn vingt quatre heures mu jeex man day duma leen nëbbu xawma woon luy xew sax man day daaw bi may bis bi may tukki France ñu yónnee ma aw ñaari nag ni ma soxna see ko joxe te su te beeco daa ma jox xëy naa jaar fa ba toll ci buntu kër ba ma ni kii yow mu ni man di jaayam laa ma ni ko ah waaw dama doon sant soxna si xam naa yéen sax ci màggal ku fanaan ci màggal jërul gisee bi hmm. waaye yë leen ni jot naa ca euh, la ngeen ma yónnee yàlla na leen yàlla fay lii de def naa ko ca suba ga ba ma màggalee ba suba te waaye boobu ma ci lulul euh, hmm. isa sak euh, la in sàkkatum laa si dànnakum hmm. waaw ma bi mu ne ma trafiku faadis rek laaj laaj jubloon ndax xam nga ni am naay nag nekk naa wo booba nekk naa taalib bu ma jox juróom fukki nag maa nga ci Angleterre hmm. ba ma daal ñëw séddale naa joxe ko ngir yàlla waaye lu mu tuut tuut am na ku ñuy wax mbaytura mii fi mu ne nii moom moom moo may njëkk a joxum nag ab tabaski te du ma sëriñam bëkk démb nag bi ma jox ci mbale mii laa daal di woo sama waa kër ni leen tàmb leen ko ci liggéeyu mbala mi suñ sëñ Mbàkke Ngunda boobu maa nga Ndakaaru ñëwaguma ci sama liggéeyu sëriñ bi ndax nit ki ne ndax damay damay damay dem Mbaye Touré sax damay dem euh, njenne di ko sant ne ko nit ku baax ku ne lii la war a defalub sëriñam sëñ Issa kon jëfam mel na ni lam defaloon sëñ Touba di ko taxawul jumaa njaareem añ ba mu ngi nii ab taalibe bi defal na ko man lu baax fu ma ko fekk dem dem fa dem naa fi Tiwaawan di tukki romb ñu ni sëñ Cheikh Ahmadou Tidiane dafa gaañu ma jaar ca barab ba sukk jàng yaasin ñaanal ko dem naa ba Maroc man ñëw ba Maroc te du ma dem ci xabrub Cheikh Amadou Tidiane du ma ko def dem naa fa ñaanal ko dem naa ku ñuy wax Idriss al Awal ca Maroc ñaanal ko man fu ma dégg ku baax at mi may demee Màkka dama yem ci Alaaji Mor Mbay Cissé wala Alaaji Mor Mbay hmm. euh, ak Alaaji Bàcc Gueye ak Daam Njaay waxtaankat am na fuñ naan bangub sëñ man euh, Mansour Mbay ci guddi gi may doxantu yéeg si fa booba sax gura laay euh, laay laa bëgg ma dikk di nuyoon ni asalaamaaleykum ñu ni maaleykum salaam man leen kooku ñu ni ma kooku ma ne Seex Ndigal ñu ni ma déedéet Seex Ndigal ci jidda ma ne waaw moom man a de Seex <laughs> Ndigal ci ci ma ne waaw ma ne man a de ñu ni déedéet <laughs> ma nuyonteeg ñoom hmm. yàlla dogal at mooma kat am ñu ma ni xaaral suwaane buñ koree da day joxe xaalis man ni laa man nag de wax dëgg yàlla suwaane taxu ma woon a taxu ma woon a ñëw <laughs> avion boobu barke Cheikh Ibrahima man dong ci ñibbi hmm. ah tumuranke naa ca yoon bu tuuti ndax avion bi man dong ci ñibbi ci ndax koreeguñ guñ man ba ma noppee rek ca siyaare yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak ak ak aj aj aj dem dem dem def la may def ci laa dugg ab yoobu ñibbi keroog benn fukki junni laa yor bi ma dikkee ba ba ba ba ba eh, Tunisie ab yoobu wàcce ma ni suba lay jàll sawóoru taxi bi ma ne ko yóbbu ma ambassade Sénégal mu ni ma bu ma demee boo ma fayul mu jël say bagage ma ne ko waaw ma daldi di dem ak moom Sénégal ba ma demee yàlla dogal ma laal bunt bi dem ba ci salle bi waa ji sax dafa ma coow ni ma foo jaar sama bon bi ma ne ko ma de sa si diplomate sa si diplomatie kon nag yaa may war a lijjanti mu jël fukki junni yooyee ca la ma jëlal auberge benn benn xëy yóbbu ma aéroport rahimu yàlla na ko yàlla yërëm dégg naa ko nelaw na sax léegi sawla la santoon naa ne xeeti pël la ba tax bi laysal birru an tuwallu wujuhakum xibala wal maghribi walakin al birru man amana billahi wal yawmil axiri wal malaikati والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي رقاب إقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وعين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك المتقون kon aaya bii dafay di wax ni la baax néewul ci jublu xibla rek baax mooy ki nga xam ne dafay gëm yàlla gëm yonent bi gëm téere yi gëm nabi ini yi tey joxe alal ci ki ko bëgg ñi ko bëgg nag lim na ko ba muy fukk ak ñaar sawil qurba ñi nga xam ne dañ ne jege mooy tey booy def lu baax ñi ñi la wër tàmbali fi wala yataamaa jirim yi nga xam ne amuñu dara jox leen wal masakin miskin yi nga xam ni am nañu añ wala amuñu reer wabni sabil ki nga xam ne day dox ci yoon ba tumuraanke wasaa'ilina ñi nga xam dañ naan mastata sawil qurba wa fi riqaab ak ñi nga xam ne dañoo yor desiiti jaam nga xam ne bu ñu leen jotoo joxeel nangam ñu jot seen bopp ak wa iqaama salaat ñi nga xam ne dañuy taxawal julli ak ñi nga xam ne wa aata sakaat dañuy joxe asaka wal moofoona bi aadi yi moo moofoona bi aadi yi moo mooy dugg ci ñaar ñii may wax seen bàyyi ak seen ñoom ñii xëccoo hmm. nañ nañ nañ mottali seen wala rey bàyya hmm. isaa aado naan ndem dañuy def wëlëre wa saabirina fil basaay wa daay dañu muñ nag coow yi ak lor yi wa inal bas yi waxtu muy ñëw ulaayka lasina sadaqu ulaayka mu ta ulaayka lasina sadaqu ulaayka mu taqwala nee na loolu buñ ko defee mooy dëgg te loolu moo di ragal yàlla ci suuratu baqara te mbir mu ne wa man taallaqa bi waasilin wasal la ñu wax wa man taallaqa bi aksin fasal ku aju ci ku àgg da nga àgg ku ajiwul ci ku àgg doo àgg te it sëñ abibu nee na kalimatul xaq tas daw radda ay sàkki nee na baatub dëgg day xotti làmbaayal sikki sàkk te famasa badal aqu ila dalal alxuraan a ko wax nee na bu dëgg xasee ñëw lu ñëwati fenn la te wala tufsido fil ardi ba'da islaahiha bu leen yàq suuf si ginnaaw bi ñu ko defaree ñoom ñii ñëw ñëpp fekk na ñu organiser leen doomi sëñ Tuubaa yi sëñ Tuubaa ni woon nag du ma nangu mukk sama doom yi yem ak yem ak ak seen doom yi sëñ Modou Moussa la ko waxoon. Hmm. ndax xam nañu sëñ Cheikh Mbacke am na dara yu rëy ju waaye sëñ Touba moo nanguwul doom yi kenn mel ni ñoom moo tax bi mu jógee fo fu fu xalifa taw tawge rek am na rëng-rëng lu samp hmm. ju cee xew sëñ Touba bañ loola mooy yi nga xam ne mooy xew ci seen biir bu leen ko naqaroo yéen itam seen maama moo nanguwul doom yi kenn gën leen hmm. waaye santi leen yàlla ku toog ci seesam bi ndax seex Ibra Fall nee na woon doomi sëñ Bamba saa yu toogee ci toog bi su matul maa koy li mooy ànd gi nga xam ne Baay Faal yi fu lu man di métti bu ñu leen jaarloon ñu jaar ñoom ñoom ñoom bokkuñu ci nga xam ne dañuy dañuy dañuy daw moom mm-hmm. li tax nga xam ni duñ leen gonfale mukk nee naa ñun Baay Faal yi dañoo liste rouge ndax li ñu waroon a am ci réew mi sax yàlla dogalu ñu amee ko noona loolu liste ruus la ba tax na kon ñun war nañoo takkaat suñu jom ak suñu ndemb gën a góor gën a góorgóorlu ndax adduna daaru xaraar laa daaru xaraar xaraar bii waru la bii sax la kërug waru la du kërug saxu kon nañu góor te sa luñ ma man di wax nag bu ma dégg kenn naqarloo ko rubba qawlin jawaabuhu fi sukkoot te Cheikh Ibra Fall sa maam nee na woon man Cheikh Ibra lu dul wasin nga dégg naa ko te damay góor moo tax lu dul wasin nga dégg naa ko te damay was damay góor moo tax kon luñ la man di wax luñ ma mën di wax bu mu doon dara amul amul amul amul ren ci man ndax dama mu rëcc ci woon ne ca daara ja di defanteek def yëf ba torox lu moom yàlla séddal la ma ak muñ te xam naa lii sëñ Tuubaa doon wax nee na fa man araadal xayra fi daara nii fal yàllus bii loolu ma ko waxawante Mbàkke Kajoor ba mu bëgg taxawal ñoom yoon wi sëñ Adama Gueye woo ko di ko won maqaam mi nga xam ne mooy li nga xam ne mooy jariñ ci yoon mooy jëf foofu la woon fa man araadal xayra fi daare ni fa yàlla si bii ku bëgg ñaari kër yi daal kaay wéeru ci man xanaa loolu moo gën a rëy mu neeti faasas muridun xaadahu llahu ila taalluqin bii wa yaasa bi ila bila mu ni murid bi texe na bi nga xam ni yàlla da ko womat mu nangoo ñëw ci man loolu it maa ngi ñëw yeddaat ñi ma ñi ma ñi def lii sëñ bi laay